Mohamed Ndiaye nekkul Aysatu Ndiaye nekkul keneen nekkul keneen mbir mi président Macky Sall moo soxla te yaakaar naa ne nag Mohamed mën naa soxla Kumba bëgg Faatu bañ Ibrahima bëgg Aysa bañ politique la demee ñun ñëpp nag ba ki tax ñun ñëpp ñu taxaw ku nekk boo tëddee njëgënaay war ngaa bàyyi xel sa bopp li tax nga doon li moo tax lu fi waay di jaay wax naa ko ay yoon. lu nit doon Macky Sall la Macky Sall moomu nag ñoo gën a gore parce que wax nañ ne su demee yoon may ko réew may ko askan yu may ko mu war a mën a taxawaat dem ba gisal boppam ne moom day bàyyi pour jox njabootam njabootam googu góor Macky Sall waruñoo gën a gore dañoo war a taxaw jàppale jàppalante ak moom dimbalante ak moom fexe ba xam ne bëgg na ko nga xam ne moom lay xaar ci ñu defal ko ko ca loolu yaakaar naa wareef la ci ñun ñëpp ku nekk politique ni mu bindoo ku nekk mën ngaa am la naq ak sa morom loolu politique la waaye nañ bàyyi xel li tax ñu doon liñ doon ñun ñëpp li tax ñun ñëpp ñu nekk fi wala li tax ñun ñëpp ku ci nekk tey soo jugee ay nit dar la loolu dama ne signature président Macky Sall la signature boobu nag dañoo war a delloo suñu xel yi bàyyi ko xel sàmmal ko ko waruñoo nangu yoon mu gën ñoo gore waruñoo nangu benn yoon mu gën ñu parce moom mi ñu jiite ah duñu ana amu na ko naqari am na lu ko naqari parce que ku jiite mu réew war gis lu naqari waaye kenn su ko gis ci moom du ci jëfam du ci comportement am donc loolu moo tax maa ngi wax na ñi ñëpp ubbi nañ bunt yëpp pour nit ñi dellu nekk jàmm nekk parce que fii ay non non mënta am politique mën naa nekk waaye li nekk ci diggante yi moo gën a sori politique te loolu nañ ko bàyyi xel donc ñun ñëpp nañ leen boolewaat suñ force yi ñuy kaf bi ree loolu moo ñu jig nañ delluwaat ci loolu parce que bëre moom yàgg-yàgg kenn dina daal lu mu yàgg-yàgg na ca bëre waru fi am kon ñun ñëpp damaa jàpp na buñ boolee suñ force yi téye incha allah fi ñu dem danañ te yàlla noppi na ku nekk mën naa bëgg dara waaye yàlla mooy séddale mooy def lu ko sopp ci ñun ak mboole seen ñi fi toog maa ngi jàpp ne ku nekk ci ñun xam nga ne li ngay yor ba ngay juddu juddoo bi ngay màgg màggaale wala ko daf laa dab ca yàlla gémme Macky Sall la di wax ne liggéey bi nag li Aïssatou Ndiaye wax moo am tàmbali na tey parrainage boo ko dégloo mooy campagne ubbi na war nañoo taxaw ca Kaolack bu raay jubee rek élection amu fi bu raay jubee élection amu fi ca kam kan kenn soxlaatu Macky Sall rek moo soxla maa ngi invité ñëpp ku nekk la neex ak la naqadi bàyyi ko sa néeg booy génn xam na say naw la ngay dajeeg nga dajeek ñoom ci anam bu rafet ñu liggéeyal président Macky Sall ba lim bëgg ñu defal ko ko. liggéey nañ ci lu am solo waxuñ ne lépp jeex na am na lu des waaye danañ continuer liggéey boobu incha allah parce que loolu rek moo ñu mën a may jàmm.